alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ca gën fës suñu lamb ma ngay desiwaat ci li nga xam si moo di lamb ji di ñu xamal ne waaye ci yan anam lan lay commencé nan lañ koy mën a defee ak ci li nga xam si moo di corona bi suñu lamb bi ñu xamal ne waa CNG jël ci ay mesures ji foofee nga xam si moo di arène nationale ba mercredi boobee woo ci ñëpp ñoo xam si njabootug lamb lañ rawatina ñamu gën a di mbëri loolee la xam si ni moom la waa CNG woote képp ku bokk ci njabootuk làmb suba ci àllarba ñi ña lay woo ci arène nationale ba nga ñëw ñakku Adama Bopp moom mooy porte parole ba ma ngay xam ne ne benn journée ñakku boobee bu doyul niki suba daañu leen fa may bu dee tamit arène nationale ba 5000 ngir ñu mën a organiser ci biir corona bi ginnaaw loolu Balla Gaye suñu làmb yi ñu xamal moom it programme yàqu na ndaxte ni mu waroon a organiser du mujjee am ndax corona bi renvoyé na digganteem ak Bombardier kon calendrier ba dina changé ci combat war a bëree ginnaaw loolu keneen rëg-rëg moom mi waroon a bëree guy gi ñibbisi na jógee États-Unis ma ngay xam la ne loolu yàqul dara ci programme am ndaxte date boobee la jàppoon pour ñibbisi ci réew mi waaye nag fi ma ngay waajaat bu baax a baax ma ngay xam la ne combat bi dépendrul ci moom ci promoteur bi la dépendre waaye nag moom day pare ne tamit nee na ndax kenn du ko bett ci dara moo di Forza bu Fass daa war a jëli revanche ci digganteem ak Pakala bu Mbour suñu làmb yi ñu xamal ne moom Forza ma ngay xam le ne kenn du ko bett ginnaaw loolu adversaire am di Pakala ma ngay xam le ne moom ki nga xam se ni moo di promoteur bi la gën a yërëm ci combat bi di Gaston Mbengue ndax ñoom lu ñu metti lee metti lee rek moo leen gën a metti lee ndax moo leen njaboote moo leen dajale moo leen jox ay millions ginnaaw loolu leneen suñu làmb door suñu làmb mi ñu xamal ne ni ki samedi bii la ñuy joxe trophée bi samedi 7 août ginnaaw loolu ñu ñëw ci keneen Modou Lo suñu làmb mi ñu xamal ne Lirou Diane sant na ko gërëm na ko tam dafa ngay xam le ne Modou Lo da ko may xaalis bu bari ci li nga xam se ni moo di tabaski bi moo tax Lirou Diane ma ngay sant Modou Lo bu baax baax ginnaaw loolu keneen Abdou Diouf bu waalo ginnaaw ba mu tekkee ba mu xëy ne tekki na ngembam waxaat na ne day takkaat ngembam ndaxte ba muy wax loolee réaction à chaud la woon ba mu daanoo rek ca wax te booba yaramam moo tàngoon ginnaaw loolu leneen suñu làmb mu ngi ñëw di ñu xamal ne 157 gala lañu organisé ci wàllum lutte simple ci saison bi nu génn ginnaaw loolu keneen moo géet suñu làmb mi ñu xamal ne moom ak suñu làmb mu gagné ci li moo di saison bi ci wàllum lutte simple suñu làmb mi ñu xamal ne gagné la toll ci enveloppe bu ci 6 mille moom Serigne Ndiaye bu Faas suñu làmb mi ñu xamal ne loolee la gagné ci saison bi ginnaaw loolee sant leen gërëm leen jox leen dig daje niki su